coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal intercoalition boobu tamit calcul politique ya ma nga fa mel ni tulleeg male mën nañoo jàpp ne sax jamono ji malaise moo fa ama ndax li nga xam ne moo ko waral bokk na ci muy Khalifa Sall di Karim Wade di Ousmane Sonko kenn ku nekk bu sañoon ak nitam muy jiite assemblée nationale ndax nag ku ci sa nit jiite assemblée nationale loolee am na ay njeexital ci lu jëm ci wàllum politique rawatina ci élection présidentielle 2024 ci Grand Yoff nee na ñi nga xam ne ñoo jege Macky Sall jàppale gi nga xam ne moom la ñu ko war a jàppale jàppale googee dafa des ndax Macky Sall bu jëlee ay ndomba tànk jox la da nga ko war a jàppale ba ñëpp teg ci seen bët te bëri na responsable yu bokk ci benn bokk yaakaar yoo xam ne dañoo daw seen base politique dañoo war a ubbeeku humble jege askan wi yéene kaay gii leen foo nee suuf si nga xam ne moom la ñuy caxte-caxte ci Sénégal jéggi cité ñu ne déete waaye kambu séegu mbaalo du ñu ko fàtte pompier aéroport Léopold Sédar Senghor yéene kaay gi nee ci Sénégal néewaa foo xam ne ñoo koy tudd te tudd fa ay ndëngate ci lu jëm ci wàllum suufa yéene kaay gi di réew mi quotidien wax ci 8600 mètres yi nga xam ne moom la ñu ci école supérieure économie appliquée bëgg koo jox ab promoteur immobilier bu tudd Léopold Ngoma suuf soose nag jur coow lu rëy ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi toll ci dagg lu toll ci huit mille six cent mètres di ko jox nit lu si man di am président Macky Sall nee na nañu ko si andil ay leeral yéen i kaay gi di Libération wax na dil bi nan la yàqoo dil bi nan la yàqoo waaye nag journal bi nee na ñi nga xam na ñooy waa domaine maanaam bërëb boobu nga xam ne moom ngeen dégg waaw ñu naan dagg nañ ci huit mille six cent mètres ñi nga xam ne ñooy waa domaine ay jamono daggoon nañ fa lu toll ci trente et un mille trois cent quatre-vingt-douze mètres carrés jox ko ay américain ñu tabax fa école waaye jamono ji américain yi ñoom tim ñoo ngi laaj waa domaine naan leen dolli leen ñu ngir ñu tabax ay parking yu ñu dugal suñu oto yee yéen kaay gi ne na loole nag doy na waar yéen kaay gi de la quotidien xëy dañu xibaar naan ñu giita ngaas am na diggante Senelec ak ñi nga xam ne ñooy waa AIBD maanaam aéroport international Blaise Diagne li nga xam ne nag moo waral coow li mën na la AIBD ñoom ñoo ameel Senelec bor bu toll ci 4 milliards Senelec yóbbu leen fa mbaxana doonee benn attekat yi wax waa AIBD na leen fay leen 4 milliards yu Senelec loolee nag ci boppam moo tax surtout yu d dañu ko daal di tëj tëj gi ñu ko tëj nag loolee tax na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk aéroport ñoom ci mer nañ ba maara di tale nee nañu dinañu dem ci ab grève bu ko defee ñu daal di bloqué avion yi maanaam kenn du mën a tukki kenn du mën a dugg ci réew mi loole nag la liggéeykat yi nekk ay AIBD fas yéene def ndax ñoom nee nañu waa AIBD yoreel nañ Senelec 4 milliards naam waaw dëgg la waaye nag li nga xam ne moo ko waral ci coronavirus bi ñun dañoo amoon ay jafe-jafe yéen a kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu nag am na ñaari gendarme ak benn civil ñoo xam ne dañoo nax koo xam ne ma nga bàyyi ko woon ca réewum Cuba ñëw ci Sénégal dañu koo nax ñaari gendarme yi ak benn civil dañoo nax waa ji tiital ko na ko dafa am am mandat d'arrêt boo xam ne moom la ñu gàll si sa ndonto ñu nag mën nañu laa jàppale mën nañoo fexe nga gaaw génn réew mi ñaari gendarme yooyu nag xam ne nag section de recherche Colobane la ñu nekk ak benn civil ginnaaw bi ñu ko tiitalee fexe nañ ba jël ci moom lu toll ci soixante millions ginnaaw bi moom soixante millions kooku nga xam ne nag ma nga jóge woon ca réewum Cuba ñëw ci sénégalais dafa mujjee sonn ci mbir mi ci xaalis bi muy joxe ci la mujjee sonn mu daal di dem porter plainte fi nga xam ne mooy sûreté urbaine sûreté urbaine ubbi ci l'enquête bi ñu defee nag seeni gëstu si la ñuy teg loxo benn gendarme boo xam ne ci section de recherche bu Colobane lay liggéeyee teg nañu ko loxo civil bi tamit jàpp nañu ko beneen gendarme bi jamono ji moom la ñuy wër a yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu benn xale bu góor boo xam ne dafa sàcc trente-cinq millions yu yaayam son dëkkab tasa yéene kaay gi di lay bu jigéen bi nga xam ne nag moo tuumaal si tóor Ndour lu jëm ci wàllum viol xale bu jigéen bi démb déglu ñu ko waaye nag moom fa mu ŋànkoon ba léegi daal fa la ŋànk nee na Sitor Ndour daf koo viol dafa yegg si kawam ma ne la gis nga xale bu jigéen bi nee na maanaam pénétration ci boppam am na ci mbir mi ngeen baal ma yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Sitor Ndour mi nga xam ne mooy ndeyi mbiliki moom tey jii danañu ko daal di dégloo yéen a kaay gi da la témoin xëy duñu xibaar mbir mu tiis mbir mu doy waar a doy waar moo xam ne nag jur nag tiitaange ca diiwaanu ndax dafa am benn gaal boo xam ne moo yaboon ay nit ngir ñu traversé gaal ga dafa suuxa bi mu suuxee nag ndekete président cour d'appel bu Ziguinchor ca ñu duggoon ca gaal ga ca la bokk ñëpp nag gis nañ leen ba mu des président cour d'appel bu Ziguinchor waa lan la wuti woon Podor dafaa demoon ndax ci benn dëkk bu tudd Doué foofee fekk baax dafa demoon ngir jaale nag benn tantaam boo xam ne moo génn àdduna moom président cour d'appel bu Ziguinchor waaye nag ba léegi ñoo ngi koy wër ci ndox mi gisuñu ko yéen kaay gi te enquête xëy duñu xibaar naan ñu inondation yi defati na musiba ndax ci diwaanu Yëmbal am na ñaari xale yu góor yoo xam ne seen kër dafa feesoon mbàkkum ndox ñu koy jéem a ngecc far courant bi mas leen faatu nañu yéen kaay gi da la rafet quotidien xëy duñu xibar naan ñu askanu Sénégal aéroport bu Saint-Louis ndax yëg ngeen ne ba dafa inondé Abdoul Mbaye moom nag nee na dañoo war a auditer aéroport bi ndax nag aéroport boo xam ne bërki démoo njaay la pare la ko inauguré dugal ci vingt ak yu fegg tey ñuy wax ne aéroport ba dafa daal di inondé loolee nag jar na ak saytu yéen kaay gi di sunu lamb xëy dañu xibaar naan ñu nag Bombardier